émeutes yi nga xamante ni moo amoon ci Sénégal di manifestation yi nga xamante ni nag moo fi amoon ginnaaw ba ñu tegee loxo Ousmane Sonko ci mbirum Adji Sarr ak mi nga xamante def ko daal di nag accusé de viol muy mbirum Sweet Beauté bile loolee ci weeru mars gi ñu daal di génn la juróom coow lu bëri ba taxoon am soulèvement populaire bu amoon ci Sénégal ci ku nekk rek di nag daal di nag xool naka ngay daal di nag def ba mën a daal di wane sa mer ñu gis jeunes yi ñu génn bu baax a baax manifester li leen leen métti am ñu si jotoon ñàkk seen bakkan ñuy wax nag ne quatorze personnes sa ñàkk nañ ci seen bakkan fu mu toll nii nag waa d nekk mouvement bi nga xamante ni nag ñoo taxawal lépp lu jëm ci wàllum démocratie ñu gis ci nag daanaka euh, leader d'opposition yëpp nekk ci Sénégal nag ñu daal ci fës lool kii nga xam ne mooy coordonnateur bi di Cheikh Tidiane Dièye annoncé woon fi fan yéene daañu daal di dugal ab plainte boo xamante dañ koy def ci état bu Sénégal ngir ñu daal di nag enquête ci mbirum ñi nga xam ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci yooyu manifestation ndax gis nañ a image yu circulé yoo xam ne day wane ay policiers yoo xam ne ñooy tiire ci kaw ay civil ba ñu ñàkk seen bakkan loolee nag euh, bi ci xam ne moo ci gën a daal di fës sama Cheikhouna Ndiaye mi nga xamante ne ca benn policier taxaw ci benn pick daal di koy viser tiire ko bal mu daanu balu bopp ci la daal di nag euh, faatoo M2D ne ca dellu ginnaaw waaye nag seen plainte bi ñu jëbloon sax ne dañ koy daal di nag plainte contre état bu Sénégal ñu naroon ko yóbbu ca tribunal bu Ndakaaru nee ñu loolu sax ñoom Euh, ñu ko daal di defati ndax nag euh, état bi su boppam day doon euh, su boobaa juge et parquet te mënoo itam ñu lay jiin dara ba pare ngay layoor sa bopp ba pare war a daal di àtte moo tax ñu bàyyi plainte boobu jël beneen plainte daal di koy nag associé ak beneen plainte boo xam ne dafay jógee ci mouvement ñi nga xam ne sénégalais de la diaspora yi nga xam ne ñoom itam dañoo defoon seen benn plainte bind ko toog ngir saisir nag ñi nga xamante ni mooy CPI di Cour pénale internationale boobu leen nag saisir nee ñu nag daal nañ koy acté ndax jël nañu plant ba ah, daal di koy nag ah, yóbbu boole ñaari plant yóbbu ko ngir état bu Sénégal daal di nag benn ñu leeral nag mbir yi ci dee yooyu nag ñooñee ñan ñoo leen faat policiers yi leen faat ñu teg leen loxo daan yi wàcc ñu def ko waaye nag ñu exiger itam ci état bu Sénégal ne lépp bu daal di nag dalee nañu daal di yëkkati ay indemnisation leen ko njaboot ñi nga xamante ñoo si ñàkk seen bakkan ndax am na ci ñoo xamante ni woon ay ndaw leen tolloon seen digg doole di nag li nga xamante ni moom mooy seen bopp liggéey teral seeni waajur am ci ñoo xamante ni itam dañoo bàyyi jabar ak doom am ñoo xam dañ ci bàyyi bàyyi ay yaay ñu nekkoon nag ay espoir nekkoon ay soutien de famille loolee lépp la ñoom ñi nag waa M2D daal di nag dëxañ ci seen requête bi nga xam ne moom la ñu jébbal jagleel ko benn plainte état bu Sénégal di ko yóbbu nag ca euh, cour pénal international mi nga xam ne mooy saytu lépp loo xamante ni moo jëm ci nag wàllu euh, li nga xamante ni euh, moom mooy dëkk yi rawatina nag état yi parfois bu ñuy daal di